ni ñuy def nag moom mooy dem seeti muus bi nga xam ne nag moom moo génn démb ca méridien président nekk muus bu ñuul kukk ñu remercier une fois encore à Khadinian chapeau à Khadinian pour maquillage bi nga xam ne nag dañ ko woo téléphone tout de suite mu daal di ñëw defar ko ak improvisation rapidement kon clin d'œil Khadinian la grande maquilleuse main d'or bi nga xam ne nag nee na ca lii lancement bi rek yow bokk nga ñu tax may wane sama talent ndax li ma jàng wane gu ko du fomp kanam rek raay mel ne cap capal dem déedéet ne na loolu du maquillage loolo moom mooy defaraat. ñaaw ñaaw ñaaw Macky. allo. maa ngi dem Méridien. maa ngi dem méridien su ma demee tiital leen après d'accord ok maman merci dégg naa ñuy commencé wax Amadou côté bi ñaaw bi alors man booy tànku Macky Sall laay jàpp ma xose ko ak kawasi d'accord tànku Macky Sall tànku Macky Sall